c'est politique dellusiwaat ci Equivox TV tey nag muy dalal kenn ci doomu euh, Jolof yi sa bokk ci candidat yi ci jongante élection yu ñu jëm euh, euh, sant bi nag moo xaw a naqari moo tax xam naa turam neex na waaye santam dafa naqari ñu koy wax Idrissa Samb jiite tamit mouvement Jolof en marche tey nag mooy sunu gan kilifa gi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Seydina Ousmane di nuyu waa c'est Equivox yëpp. di ñaan dalal leen jàmm yàlla yàlla def jàmm. amiin yaa rabbi maa ngi koy wax sànq yaa ngi fas yéen dem ci bannière Yewwi Askan Wi euh, bataay bi xam naa ne foofu ca Jolof du yomb ndax ñoom Samba Diobène Ka ak ña ca aju ña nga fa mais déjà euh, soo ñuy wax sa parcours inspecteur des domaines. Euh, la ñu gën a xam ci yow au delà de mouvement ak yooyu lan nga ci mën a dolli ci sa taxawaay ci sa engagement ci wàllu politique. waaw Idrissa Samb de mi ngi nekk euh, benn euh, xale bu juddu en deux mille cent quatre-vingt à Daara Jolof foofu laa jàngee ba am sama BFM dem Kaolack am baccalauréat ñëw université Cheikh Anta Diop de façon ramassée def sciences économie et gestion. j'ai eu ma maîtrise après ma def sama DIA en économie au PTCI programme de troisième cycle interuniversitaire 2015 2005 2007 j'ai réussi l'ENA ma nekk inspecteur des impôts en 2009 jusqu'à présent maa ngi inspecteur vérificateur à la direction des grandes entreprises loolu mooy sama parcours scolaire professionnel universitaire bu dee wàllu politique nag euh, ñi ngi créer le mouvement Jolof en marche au mois de mars 2018 euh, avant loolu on était dans le social depuis 2012 on ñi ngi jàppale doomu aadama yi ci ay actions yoo xamante ni ñi ngi ko doon def ci xaaruñu woon dara ci askan wi lu dul ñaan ak am ci ngërëmu yàlla suñu borom ak askan wi ñu koy defal ba 2018 daal man ak samay xarit ay cadre ay mag ay ndaw ay góor ay jigéen xalaat ne daal mbir mi boo koy def te amuloo benn appareil boo mën a yor lu mel ni un parti wala un mouvement daanaka doo am ci benn soubassement boo tee ci cadre boobu ci la ñu créé suñu mouvement boobu tudd la Jolof en marche boobaak léegi nag ñu ngi doxal élection présidentielle yi ñëw na dem nañ ñi ngi doxal ba élection locale yi di ñëw aussi Jolof en marche dugg ci coalition Yewwi Askan Wi yàlla dogal suma nawle yu baax yooyu aussi jiital ma ci. Mhm. jiital la ci yaa ngi koy wax léegi ngay inspecteur des domaines suivre nga benn débat bëgg naa ñu évoquer yenn aspect ci actualité laataa ñu ñëw ci sa engagement politique moom mooy coowal fisc bi bu gaan ak yooyu jàpp ngeen dañ ko tool wala. Mm, waaw loolu comme yàlla def na ci jàmm sax xam naa ne di ci ñëwaat. dina doy waar mais mais tooñ amu ci tooñ amu ci parce que lu waaye xam rek xam ne euh, administration fiscale administration neutre la administration pourvoyeuse de presque soixante dix pour cent des recettes fiscales euh, administration euh, direction générale des impôts et domaines moo ko nekk xam nga système fiscal sénégalais c'est un fiscal déclaratif hmm. euh, maanaam nit ki mooy jël ay li mu am yóbbu ko ci impôt ne leen lii laa am ci at mi waaye dangay ngay permettre aussi loolu nga wax droit de regard droit de regard boobu moom mooy administration fiscale muy def ñaari contrôle le contrôle sur pièce boo xam ne dañuy toog suñu bureau xool sa dossier ndax baax na waaye léeg-léeg aussi ñi programmé dem sur place loolu ñu contrôle de comptabilité ko vérification de comptabilité wala contrôle sur place bugaan moom wala groupe des médias wala l' boobu ñuy laaj impôt yooyu noonu la administration fiscale dem def mucc liggéey bu mucc ayib bon ba laaj ko lii ñu ko laaj ay la yéwén ci suñu gis-gis daal ak li ñu xam ci dossier bi euh, euh, jàpp nañ ne ay droit yu mu waroon fay la waaw mais comme tamit moom it dafa ne euh, chef de l'État ci Covid bi mu amee dafa baaloon entreprise de presse yëpp ne leen defal na leen ay soit délai ay grâce mm. wala ay amnistie xaw ma nu mu ko tuddee mm. mais dama xamul ndax administration fiscale période bi mu jël bokk na ak période de grâce bi parce que loolu tamit mën na am amalgame parce que administration fiscale buy dem ci vérification am na droit jël quatre ans de vérification est-ce que les quatre ans concernent mooy période bi ñu leen defalee grâce wala déedéet mais lu ci mënta am euh, l'administration elle est écrite moom buñ ko bindee li mu waroon def rek fenn rek laay laa koy reproché erreur bu tey erreur am na apparemment euh, euh, débat oral et contradictoire wala débat écrit et contradictoire bi ci waroon a am instauré wu ko alors que boo ko deful ñu dañuy considérer rek bu délai yi jeexee ne accepté nga lañ la bind et puis on peut procéder par taxation d'office et tout ça hmm. te buñ ko xasee bind rek malheureusement euh, la machine est, est enclenchée tu es de payer mais heureusement apparemment tout est bien qui finit bi am na dénouement heureux ba euh, administration fiscale tamit euh, liggéeyam du tëj ay entreprise parce que comme on di on ne on on ne tue pas la poule au œufs d'or administration fiscale xam na ne entreprise sénégalaise wala étrangère yi fi nekk ci ñoom la ñu mën a basé wu pour am ay recettes fiscales pour le budget de l'État donc yaakaar naa su bëggaan waxtaanee ak waa administration fiscale rek dinañ déggoo quoi. alors dina yomb ci yow Jolof Samba Ndiobène Ka nga xam ñoo yor appareil yi jamono ji yow ngay seen challenger di dem ci euh, coalition yi Askan Wi déjà euh, dépo yi yan moom amu leen. waaw parce que fu ci bëri ñu ngi wax ay forclusion <laughs> ñu ngi wax ay rejet de dépôt coow la fii ci réew mi gis nga sax sànq déclaration bi ci waa Yewwi def euh, Ousmane Sonko di leader bi koy incarné ak ñoom Khalifa Ababacar Sall ne li xew ca Mbour xew ca Matam ak yenn gox yu bëri. administration territoriale lañ ci gàkkal mhm. ne ñoom seen loxo génnu ci mhm. te yii bu fekkee ni taxawaay amu ci élection du am ci gox yu bëri maanaam xeex lañu ngeen woote woo jëm ci yooyu yooyu yëpp boo koy jàngat waaw waaw d'abord dañuy woote jàmm comme ni ko suñu kilifa diine yi waxee ci jamonoy màggal gi ak euh, gàmm yi ñaan jàmm ci réew mi jàmm jooju nag kuy jiite réew mi di président Macky Sall mi nga xam ne moom mooy le père de la nation moo ko moo ko moo moom moom lañ njëkk a woo suñ ko ci wooyee mooy côté parti waaye opposition bi te xam ne euh, bésu dimanche ca ngoon ndam li du génn Sénégal mm. cooli cooli su c'est nous dans nous kon nañu nañu defalante jàmm bu dee wàllu administration territoriale yooyu man je pense que ñooñu euh, ay nittu nitu yu am kii la ñu Pastef ndax ay nitu euh, hauts fonctionnaires lañ ils sont au dessus de la mêlée ils sont ils doivent être en tout cas impartial li ma gëm mooy ñoom war ñu dugg ci jeu bi ah waaye xel xaw na tey parce que Euh, li ñu gis ci région yi département yi communes yëpp mooy forclusion wala liste yi ñu invalidé yëpp opposition la loolu nag xel tey na ndax <laughs> gëm naa ne le pouvoir n'est pas plus organisé que l'opposition pour que ñoom rek ñooy am ay forclusion wala ñoom rek ñoom la ñuy rejeté xel tey na man dama gis ne phase contentieuse comme am na su liste bi incomplété wala mu am ay yenn incohérence yi li gënoon mooy ñuy wootee hmm. ne dolli leen complété leen seen dossier bi mais des villes stratégiques Mbour j'ai entendu que le frère euh, Guirassi aussi dañ ko invalidé ak à Dakar comme Bougane yooyu hmm. c'est symbolique hmm. benn tri mooy lañ doon def ca parrainage ba di xool ñañ war a bëreeg ci euh, làmb ji loolu nag buñ ko defee mm. en face aussi ñoom liñ am rek mooy euh, wax ne lii bu amee dañuy bañ duñ ko nangu danañu fexe ba élection da am te loolu bokkul ci jeu démocratique man dama gëm ne mm. jeu boo xamante ni dañ fay dem les dés sont déjà pipés loolu wóorul kon maa ngi woo le président Macky ak sa coalition Benno Bokk Yaakaar di woo waa coalition Yewwi Askan ak yeneen coalition yëpp coow daal ca dimanche ngoon la niñ ko xamee lépp dal. ca bu dee ca jolof euh, euh, yëf yi du du yomb dëgg la parce que ku ne xam na ne politique gu jolof yombul surtout boo nekkee ci opposition. mais yàlla dogal na euh, wax dëgg fa yàlla yeewi askan wi ca ca jolof surtout daara jolof nag ñun dañoo teel a jóg. je vous dis que ñun dañoo amoon coalition avant la naissance de la coalition yeewi askan wi far lii ñëw fekk ñi ci. ñun bokk nañ ci ñi njëkk a choisir un candidat consensuel ci Sénégal en tout cas ci coalition Yewwi Askan Wi li may wax ni suma mag Habib Sy euh, il a été même félicité parce que moo j moo jiite woon loolu ñuy wax commission d'investiture au niveau national bokk na ci li mu félicité waa Daara Jolof moom ñi njëkk bokk ci ñi am candidat consensuel amuñu benn contentieux suñu jëmmu xeebu jii nag nekk ci mouvement dem huit entités yu constitué la coalition Yewwi Askan Wi ñi tànn ñi ne ñu kaay jiite ñu te jiite wuñ leen ci gën leen dàqale na jàng wala leen mais yaakaar gu ñu am ci ñun ne waa Daara Jolof bu ñu demee ci le 23 janvier 2022 dinañu jox seen bopp kon yomb gi moom ñun li ñu ñaan rek mooy dund ak fekkee ndax nag euh, ñi fi nekk tey jii di le frère ministre Samba Ndiobène Ka c'est un ministre de la République dëgg la mais damay fàttali waa Daara ne il est conseiller municipal instant de ce bilan Ouais, je vous bilan dis bilan bi euh, la sama mag Momar Ali Ndiaye Mao hmm. euh, je dis toujours que il ne faut pas être àdduna yàlla rek a matal Mao jàmbaar la liggéey na la mu man ak la dooleem tollool mais jamono weesu na incha allah euh, jëlaat nañ beneen nawleem ci coalition bi hmm. waaye ils sont tous comptables de ce bilan bu baaxee ñoom la bu bonee ñoom la te li ma gën mooy passable passable quand même, passable. Et Samou Ndiébène est dans ce passable-là parce qu'il est conseiller municipal, il est comptable de ce bilan. Mais li tax muy yomb. Euh, euh, depuis 2012 bi le président Macky Sall nekkee président de la République mosul teg tànkam Daara Jolof. président tegu fa tànkam. dëkk bu nekk mag yi président def na fa ay tournée économique am yooyu xool seeni naxar xool leen métti mu fajal leen seen soxla ba mu ëf Daara ba tournée bii mu mujj def jaar na Linguère waa de personnes génn. da leen a romb taxaw fa loolu nag saw saaga dem fekki alingu yi romb sàmm njóobee nag yeneen nawleem ya toogoon daara yëkkati leen loxo en cinq minutes jaar fa dem wàccu fa sax ñu teral ko loolu nag aw saaga la woo xamante ni defoon na ko wala aw aw aw naxaral woo xam ne waa daara maa ngi gëm ne dinañu dinañu dinañu jël seen revanche le 23 jan janvier 2021 bi beneen bi mooy li ma wax léegi mosu fa teg brique mosu fa jaar mais mu tëdd paleem boobu jël bigam ak fëyam tànnal leen ne leen kii moo leen jiite comme moom amoon na ngor ak toog ne man daara ñoru ba dew ma fa ci sama septennat naa duma fa dem ci sama quinquennat kon xamul problème mu daara kon du moom moo ñuy tànnal ki nga xamante ni moo war a janoo ak ñun loolu nag ñoom la waa daara dégg nañ message boobu xam nañ le 23 janvier incha allah kii leen di euh, jiite jiite seen destiné mairie du koo xamante ni euh, avenir am lañ koy tànnee. ah oui bàyyi ko ci benn bopp déedéet déedéet non leer nañu ñun yàlla incha allah bu ko yàlla tuddee ñi ànd liggéey ñi ak waa coalition ci unité bi ak dynamique bi ñu nekk. non c'est sûr que ñii mais attention li ngay wax nii ne président Macky Sall jaar na fa cinq minutes la fa def mais mobilisation bu ngand lañ fa gis boo xamante ni euh, Samba Diobène Ka ak ñoom mu àndal def nañ ko boo fa jàllee dem Linguère également lu mel noonu lañ fa nemmeeku c'est-à-dire on a comme l'impression que ni yéen opposition oui yéen a ngi nii mais capacité de mobilisation bi ñoom Samba Diobène am Euh, bokkut ak yéen bi ngeen amee. ah naturellement parce que tamit ñoo yor doole ji ñoo yor xaalis bi ñoom ñooy yor car rapide yeeg njaga njaay yeeg ëpp yaay ñoo yor t yi yor cinq mille yi yor yor teraanga yi di ko jox nit ñi te jamono ji toll na foo xamante ni am na ñoo xamante ni ñoom xiifal nañu doomu aadama yi la gelwaar doon wax naan gor boo ko bëggee soppi mala wala nga soppi ko jaam da nga koy xiifal le président Macky Sall xam na loolu ndax élève Abdoulaye Wade la woon président nee woon na chaque sénégalais a un prix am na njëg loolu nag daanaka dafa dem ba def ko ci biir sénégalais yi mais jolof-jolof yooyu yëpp ñëwoon foofu avec leur mobilisation artificielle non li leen fa yóbbu mooy seetaan mais du ñoom gëm nañ ne président il n'a pas un bilan à daara gëm nañ ne du euh, son candidat moom moo bokk ci ñi nga xam ne ñoo war a defal xar-xaramu daara ndax yàgg na fa dem fi ba mu fa nekkee ba léegi amul benn réalisation bu mu def kon kii mu fa tegit seen mobilisation yëpp li gënoon mooy comme li ma léegi comme nee nga mobilisation exceptionnelle kon waroon na leen a sagal sax wàcc fa naan fa ndox ñi teral ko ndax ku ne xam ne jolof-jolof ak waa daara ñoo xam teraanga tax leer na ma leer yàlla na sama frère sama njëbeen denc doon nag ay nag ak gileem <laughs> loolu euh, dañuy wax ci euh, potentialité daara yaa ngi wax ni euh, muy septennam muy quinquennam yéegagu leen dëggantaan lu fa def acte trois de la décentralisation dafa ñëwoon wax communalisation intégrale di wax équité territoriale gox yi. Mm-hmm. souvent dañuy wax ni profilage bi day poser problème nit mun nga ko jiital du xam potentialité gox bi est-ce que sooy wax ni am na ñii eh, ñi ko incarné ay la yoon def nañ lu ñu mën ba nga ne passable la mu mel ni yow suñu dégg-dégg mën nga ko yóbbu ci niveau bu uteeg passable boobaa ci yan levier ngay sukkandiku yan instrument noo comprendre jorof ba jàpp ne xëy na foofu la envolom war a jëm te xëy na ñu war ko yaakaaree ci yow Sambène bi. waaw loolu yëpp ci ay euh, innovation la rek d' abord li nga wax ci acte trois de la décentralisation dafa def ba décommunalisation universelle loolu d' abord damay wax ne injustice la def ci Daara Jolof. ah euh, euh, la commune de Daara est ceinturée par une commune bu ñu wax Thiamène Pass. Daara léegi dem na ba amatul suuf ndax dañ ko wër du nord au sud de l' est à l' ouest yoo dox ci dëkk bi yaa ngi dugg ci commune jàmbur loolu c' est ñun bu ñu ñëwee li ñu njëkk a wax ak autorité publique yi. mooy avec la l'appui de la direction de l'aménagement territorial ñuy retracé waat le territoire communal de la de la de la ville de Daara loolu bokk na ci li ñu njëkk a xeex leneen li nga xam ne aussi suñu programme ñu ko décliné mooy euh, que le Djolof devienne une quinzième région ah oui. Daara devient un département compte des potentialités d'abord économiques démographiques et j'en mais historiquement comme li ma ko yàgg a wax en 1459 le Djolof était un grand royaume qui a annexé les autres royaumes li may wax chaque fois aussi les autres royaumes comme le Baol le Kayor le Sine le Saloum la verte Casamance la Fouta ñoom ñëpp i sont devenus des régions naturelles lan moo boolee la Jolof ak la jaamur rien parce que Abdou Diouf était premier ministre en 1974 rek ñu jël Linguère boole ko ak njaamur kon Jolof ak njaamur amuñu lenn lu ñu bokk dana bokk ci li nga xamante ni ñun dañ koy teg sur la table d'ailleurs on a un manifeste qui en parle bu ñu ñëwee ci wàllu potentialité économique yi Jolof am en général Daara en particulier ku ne xam na ne le luuma de Daara les gens même moo nekk ginnaaw jaarabu gaaw bu jaaw mais moi je dis c'est niveau international ou national parce que c'est des Maliens des Guinéens des Mauritaniens qui convergent chaque jour chaque dimanche c'est des milliers de personnes loolu am na lu muy indi ci recette fiscale et je toujours am na lu ñuy wax des externalités positives maanaam gan yooyu suñu ñëwee dinañu consommer suñu ñëwee dinañu jënd dana ñu dëkk yooyu ay recette la yooyu dugg ci dëkk bi nit ñi di ko consommer mu nekk li ñu naan ce qu'on appelle un xam ne day day day wëraat doon am production richesse ñëw te ku wax richesse wax fiscalité kon levier bi ñuy njëkk wax mooy fexe ba niche fiscale yi nga xam ne mi ngi biir Jolof nekk biir Daara ñu fexe ba exploité ko ba le budget qui avoisine les 500 millions ñun suñu bëgg-bëgg mooy au pire des cas suñu deuxième année ñu yóbbu ko ba un milliard. le budget loolu bokk na ci suñuy suñuy suñuy suñuy bëgg-bëgg incha allah bu ñu ko amee aussi je di toujours que les mairies seen problème mooy dañu jël lépp yóbbu ko ci budget de fonctionnement. ñun suñu ñëwee 60 pour cent voire plus dañ ko yóbbu ci wàllu investissement parce que fonctionnement. waa mairie bi ak ña nekk rek ci yëg seen bopp. investissement boobu ci yenn secteur la lan mooy secteur d' activité Jolof yoo xam ci nga mise wu en dehors de luuma bi nga wax ni euh, kon ça veut dire que yooyu aussi dafay bokkaale ci luuma la muy drainer ak la muy def yëpp dafay bokkaale ci bilan positif wu euh, l' équipe sortante. Euh, luuma bi c' est un fait. lu mu fekk la lu fi ñu fekk fekkoon ñeneen ñi fi nekk fekkoon ko fi mais est ce qu' ils l' ont exploité à bon escient. ah oui est ce qu'il y a de la transparence dans la collecte. des des des des des taxes là je donne ma langue au loolu ñun bu ñëwee dinañ def ce ko appelle un audit xool marché bi lan mooy potentiel tem lan moo lan lay génne lan mooy goulot d'étranglement yi mais aussi am na ay niche fiscale hmm. ndax képp ku xam ne daara instant yi dëkk la boo xam ne mi ngi màgg ci côté wàllu tabax hmm. te yaa a ko qu'on appelle des impôts ko li ñuy wax contribution foncière des propriétés bâties ay la sel la tom yoo xamante ni day ay recette locale yoo xamante ni day ñëwaat ci commune bi moo tax moo doon wax ay niche yoo xamante jéem a exploité nga xam ne dina yokk suñu suñu budget bi du doon marché bi rek mais bëri na ay niche surtout nag la coopération décentralisée hmm. national comme internationale avec nos partenaires locaux et internationaux incha allah gëm naa ne on va booster l'économie du Djolof en général et celle de Dahra que le budget egg li ma wax nii muy un milliard d'accord on aura l'occasion ñu ba Djolof su ko defee ñu xool ak ñoom <laughs> euh, li ngay wax ci potentialité ak programme bi ngay décliner nii ñu xool dëggantaan ci yan accès la ak li nga xam te ne moo jëm ci euh, maa ngi koy wax léegi di di instruments yi fi ñu jeexalee mooy euh, yaa ngi Pastef. non man bokkuma Pastef nag je suis un électron libre. nous ah avons un mouvement. dénommé Jolof en marche comme li may wax. nekk un une entité politique mais au niveau local dans le Jolof mais bokkuñu Pastef mais. àndoon nañ ak le euh, président, président Ousmane Sonko ouais. ci coalition Sonko président en 2019 ci élection présidentielle yi et on était arrivé deuxième derrière la grande coalition Benno Bokk Yaakaar malgré leurs moyens colossaux yu ñu am mm. en tout cas leur a fait peur mm. te gëm naa ne le 23 janvier bi incha allah on prend. lu la tere say ci parti bi comme waaw ñun nag. Euh, xaw ngeen a nuroo ah inspecteur <laughs> inspecteur. jaara ngeen waaw inspecteur su suñu mag la suñu kilifa la nekk nag aussi euh, un homme vertueux vraiment liggéey nañu euh, ne serait-ce que six ans dans l' administration fiscale. Hmm. mais il fait partie des meilleurs de sa génération te nekk un homme très vertueux. loolu nag wàllu administration wàllu politique dafa am gëm-gëmam ñun ñu am suñu gëm-gëm ah peut-être dañu épouser wul idéologie wala dañoo da gëmagul ne ñun war nañ bokk ci parti parce que parti aussi da ngay am lu ñu naan une discipline de parti alors que ñun dañu am une liberté de temps ñun kenn duñu tënk man moo tax man ak samay morom ñun dañu bëgg actualité nationale internationale politique économique lépp lu jóg nga joxe ci sa xalaat alors que boo tënkoo ci parti tu obligé nga déglu lu parti ba wax loolu la lu parti ba loolu la boole ceek am na ci ñoo xam ne tey ñu ànd ak yow ne kii moo baax suba kii baaxul ñun hmm. gëmuñu loolu ñun daal li ñu gën a ñor mooy jolof li ma wax léegi te suñu xeex dëgg-dëgg mooy la jolof devienne une quinzième région hmm. daara un département loolu daal ku ñu ci mën a jàppale danañ ànd ak yow ñàkk nekk ci parti du tere nga jouer sa partition ci réew du tere nga jouer sa partition ci ci ci ci ci ci Jolof d'accord dernière question gis nañu inspecteur de domaines yi léegi dañoo sóobu ci politique bi am ñu jàpp ni mën na doon un précédent dangereux l'administration politisée à la limite mun na est-ce que da ci am beneen jàngat bu uteeg ñoom li ñuy wax wala bu dee lu positif la looleen di jox comme argument bon man nag gis naa ne dara nekku ci d'abord ñun réewum légalité lañ nekk maanaam ci ay loi la ñuy tënku comme loi yi aayewul inspecteur des impôts contrairement à ce que mu aaye un magistrat wala un commandant des douanes comme ñun ñuy gën doo alena ñoom aaye nañ leen du ngeen politique ñun aayeeguñ ñu comme loi à permettre nañu dañ ko war a def def ko nag li ci ëpp ñi ma gis mooy euh, ay cadre la ñu waroon a tëdd seen kër nekk Dakar gu sedd gi mais dem ci àll bi waññeekuwaat la leen askan wa jox maanaam jur leen jàngal leen ñu delloowaat ko muy séedee seen xam-xam seen relation wala seen koom-koom loolu mënoon nañ tey fii nekk ay inspecteurs des impôts yi dem ay Dubaï di voyager di dem États-Unis wala dem ay Saly mais man ak samay morom bari na ci ñoo xam ne li tax ñi politique mooy delloowaat seen askan la nga xamante ni moom la def ci ñoom kon pour man partialité impartialité waru ci am parce que ay hauts fonctionnaires la na est formé dans la bon école muy ENA une prestigieuse école lu tere tey jii man Idrissa Samb tey jii inspecteur des impôts dinaa mën a def la différence entre Idrissa inspecteur des impôts wala Idrissa politicien du lundi au vendredi je suis un fonctionnaire damay liggéey mais du vendredi soir jusqu'au dimanche soir je peux politicien su ma neexee dem daara su ma neexee dem fu ma neex defi politicien loolu nag amul benn différence gëm naa ne muy politicien bu nekk di inspecteur des impôts que tu sois dans l'opposition comme le pouvoir aussi tu peux faire la différence parce que nag ay nit ñu xereñ leen ndax nag n'est pas inspecteur qui qui veut parce que tamit boo demee ca ENA ña jiitu la ñooy nekk inspecteur des impôts kon ay la yéen borom xalaat lañ borom xam-xam lañ te ay nit yu bëgg réew mi lañ kon impartialité ñun nekkuñu fi pour président parce que c'est la continuité de l'État tey ñun liggéey nañu ak président Ablaye Wade ñu ngi liggéey ak président Macky Sall 2024 incha allah on travaillera avec un autre président. Hmm. kon inspecteur des impôts moom mooy administration. kon c'est un faux débat li troisième candidature beeg yooyu. parce que yaa ngi ne dinañ liggéey. c'est impossible c'est impossible c'est impossible. c'est un faux débat troisième troisième candidature. président Macky nekk légalement. moralement warul nekk parce que wax na ko à moins que fasse comme le président ne woon maa waxoon waxet mais antécédent yi mu jural président Ablaye Wade gëwuma ne Macky Sall mii ma gis nga xamante ni loo ci mënti waxit il est jeune il a de l'avenir il a un bilan mais nul n'est indispensable dans cette vie Ablaye Wade amul lu mu deful ci réew mi Macky Sall a un très bon bilan mais nguuru yàlla rek moo dul jeex 12 ans ku ko def ci réew ñu jël lépp jox la ay la boo paree yow yaa war a fay sénégalais yi ne leen joxaat leen keneen bu jiyam il la possibilité de mais gëm naa ne ay nitam ñoo ko ciy jéem a dugal mais man jàpp naa ne président mag Sall du ko def candidature nag bu ko neexee mu force mais dans ce cas les sénégalais vont trancher je sais que il sera ridicule hmm. maa ngi koy ñaanal mu jaar par la très grande porte parce que kilifa la ku baax la mu ngi liggéey réew mi mais dañuy ñaan stabilité bi ñu bëgg jàmm réew mi nga xam ne bu fi jógewaatee toog Mermoz Gueye di dem Fatick di dem Fuuta fu ko neex jaar ndax loolu laa ko yéene man li ko koy may nag mooy bu jeexale rek mu dem ndànk xool ku mën a dugal ci euh, ay ay nitam ñu laaj réew mi nekk si jàmm man dal gëm naa ne président Macky Sall xalaatu troisième xalaatu ko en tout cas ñu lay gërëm di la sant kilifa gi maa ngi lay gërëm bu baax di leen sant asalaam am mbégte ànd moom kon mu ngoog di euh, sambeen bi <laughs> moom laa wax nee naa ne turam bi moo gën a neex santam bi Idrissa borom Jolof en marche nekkit inspecteur des domaines lii la woon seen émission c'est politique ci Equivox TV beneen yoon beneen gan.